moom la Ousmane Sonko di dund ak ni ñu defee blocus autour de son de son domicile jël ay téléphone am def yeneen ak yeneen ak yeneen et on espère que sortir de cette histoire là la justice va en sortir relevée euh, du ñu nangu benn yoon li nga xamante ne moom mooy salfaañe lenn li nga xamante ne léegi nag problème bi foofu aussi euh, xam nga problème bi foofu tamit benn ci pilier de la de la euh, problème bi foofu tamit gis nga l'autre partie aussi dañoo beddi justice trop ça veut dire xam nga justice. mais ak c'est le dernier rempart. ak li xew yëpp gis nga li xew yëpp saisine. il fallait da ngay continuer man non man man dama gëm dara. amuñu y a pas d'alternative à la justice. d'accord quel que soit li may wax nag euh, ajaabite yi dafa am solo. d'accord ñun dañoo critiquer justice. di ko mhm. continuer di ko critiquer. ba nga démissionné ci ba ma démissionné ci. mais ku ñëw kenn ku ñëw ne ma tooñ nañ ma duma la ne demal fayu ci demal porte plainte lañ lay wax parce que nous sommes dans un état où la justice aussi imparfaite qu'elle soit mhm. moom moo fi nekk maintenant ñun nag dañoo war a continuer di justice boobu ñu koy ñu koy voilà ut ñuy ñuy ñu koy saisir ñuy def ay recours euh, justice CEDEAO ñu continuer d'accord et et puis on est à quelques mois des élections où il est clair que incha allah alternance dana am maintenant man lu ma lu lu ma préoccupé moom mooy ñi fi nekk ñëpp di critiquer justice mais ban lan la ñu def comme réforme lan la ñu laaj comme réforme parce qu'il faut que li fi nekk jóge fi définitivement. voilà lan lañ proposé aussi comme réforme. d'accord il n'y a aucune proposition. et et et puis su système bi su fi nekkee képp keneen ku fi ñëw nekk président il peut reprendre la même chose te suñu démocratie rek moom moo ciy pâtir.